salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan tey ñu ngi ni seen beneen numéro découverte tay ñu ngi fi ci Pout à 50 km de Dakar pour waxtané lu jëm ci yarum pigeon lu jëm ci fili en général war ko sék ak ku ñuy wax Issa Sek ñu gën ko xam ci Issa Pout tay ñi ngi ñëw wara am ak mom waxtaan wu yaatu wax ñu lu jëm ci pétax jaar-jaaram ak nan la ci duggé ak lan moko ko poussé ba mu dugg ci yarum pigeon mu jël adunaam yépp concentré ko ci loolu

ànd ak euh, ISAB nga xam ne kenn dootu ko présenté vraiment muy nekk ko xam ne mi ngi bay waaram ci élevage bi ci wàllu colombophilie ci wàllu élevage façon bu ne ndax fii di ngeen ko découvrir après di ngeen gis façon lu ne fi nekk ISAB ñu bàyyi la nga présenté wu ci lay seetaan. waaw maa ngi siyaar Sénégal àdduna ñëpp rawatina Ndiaga Ndiaga dafa yàgg bay waaram si élevage donto journaliste la mais. moom mu ngi sukkali élevage bu baax a baax ndax ñoom ñu ngi def seen équipe di si def jéego yoo xam ne wax dëgg yàlla état war na reconnaître loolu ndax ñun amuñu loolu Sénégal ay ndaw yoo xam ni suñu dëkk rek moo nu ñor leneen ñoruñu mënoon nañ fee bàyyi lépp dem liggéeyal ñeneen mais boo xoolee boobu ba léegi si ay mbir exposition yi foire fu ne bokk naa si ñi mu njëkk a defal émission bu ma njëkk a sentir sama ay yoon yoon nag. may rafetlu seen teewaay. bu baax a baax a ñu ñëw fii ci kër gi ñu la fekk nii mais kër gi mel ay animaux rek fi nekk wala nu mu demee noonu waaw fii animaux rek ndax comme man stress laay bañ ak tax ma animaux rek bu ma bon bi day ñëw mhm. dem su deful dara benn chambre bi laa occupé fa laay tëdd mhm. récupéré après sama kër famille ngi fii eh, quoi si kanam ah, HLM mais fii kër gi mën nañ tey yan ak yan espace ñoo fi nekk non espèce da nga fekk yu bari mais actuellement bu volaille dañ fi fekk pan di y du canard de pompon. Mhm. di autrice di émo. émo émo mais sa amour ci ci ci élevage nan la élevage passion ndax 1992 commencé def élevage mais démarré wu ma ko Pout quoi Pikine démarré Tabla ah ok Pikine. à mais Sénégal mais mais autrice bi daa mel ni. bii hmm. femelle kese la a war na mâle bi. waaw c'est autrice yi dafa am benn autorité boo xam ni moom laa ko jox ndax bari woon nañ fi quoi. mais comme fii tamit ay échantillon nga fi teg. pour gars yi hmm. nga xam ni dañ bëgg élevage souvent suñ fi ñëwee wala booy yi def visite. waaw ah. man xale yi ñooy samay gaañ quoi. dëgg la dañuy ñëw dugg xool espèce yi fi nekk. moo tax bu bii demee rek. waaw nga gis day ñëwaat. ndax fii rek du sama base élevage quoi. d'accord d'accord. Hmm. d'accord kon ñu dugg xool def ay pic la quoi moom la yor wax si olof saaw. saaw waaw waaw. mais noo def ba bay bay yar li non kii yërmande laa si am rek ndax kii ba ma koy am état bi mu tolloon dama ko foroon état jeune quoi. Hmm. for ma ko direct quoi dañ ko for jox ma ko. fekk mu sonn quoi ma téye ko di si jaamu yàlla nag. dëgg yàlla def mu mënal boppam. Hmm. mais nag ku reconnaissant la quoi dëgg yàlla sama xarit la. waaw mais nag lu jafe nekkal la ah. mais mais lii kay man maa ngi koy soog a même tubaab bi sax may envoyé ay message ak yu nekk di si commentaire yu bari. fan la jaar metti woon na ba tey jii nga mën a am tey kër goo mën a amal sa bopp ndax ndax ay pigeon persévérance boobu lan ngay dénk tey ñi nga xam ni ñu ngi soog a dugg ci élevage pigeon wala jékki-jékki nañ am amuuru pigeon parce que boo seetloo Sénégal fii boo dee bas âge da ngay bëgg peut-être après ngay bàyyi mais boo nekkee xale moom di nga bëgg ay pigeon tey sa parcours boobu tey lan nga ci lan la ci nit ñi mën a jàngat. waaw gérer lu bari Euh, booy dañu nekk jeune dañuy bëgg pison mais seen jàng. Mhm. du leen may pour ñu bàyyi leen ñu topp élevage ndax élevage dafa xaw a siis. Mhm. moo tax booy yu bari sax fii dañ fiy ñëw. Mhm. mais dama leen wax dem leen ba vacances yi ngeen fiy ñëw di fréquenter quoi. ndax mënul ànd ak jàng wala nga góorgóorlu trop. nga gëm éthique yi quoi. man nag yàlla dafa def sama turandoo. Euh, moom dafa am fu ma tegoon fu doy waar sax amoon li laa bëgg. moom si otoom la ma daan yëpp yóbbu ma marché Zeng jëndal ma ay pigeon indil ma kër ga. boobu maa ngi dëkk Pikine quoi. finalement c'est la ñëw pour ba ma ñëwee pour tamit la ma xamoon foofu ak la ma fa tàmmoon fi ba ma ñëwee ak ma mayoon yooyu dëgg la ndax euh, gëmuñu ko woon comme ni sama turandoo bi gëmee woon dëgg la may takkale ba mujj dama mujj bàyyi sama liggéey quoi ndax man dama daan naviguer quoi maa ngi si géej dëgg la je obligé dama mujj bàyyi sama liggéey hmm. Top pigeon yi mujj gi dem pak kolobaan léegi fa jënd fa benn place quoi place dañ ko doon jaay di exposer ay pigeon di jaay affaire yooyu sama copain yu bari dañ ma si bàyyi woon sax wala ñu ma si classe man dama bëggoon solo nak subhanallah wala dem El malik fa dan solo <laughs> yoy yëpp dama ko daan def mu jigi ñu dema dema dem ba mu jigi dal eh. man li dal xalaat na ni suma ko topé dina ci gis mm-hmm. ndariñ quoi loolu moma bo lek prison même sama biir kër bi ma dëkk sama famille au début dafa metti won na prison yi bari won loon bari boobu bu génnee sax maire bi sax da daan kaas nit ñi duggal a génn bi da daan kaas mm. sama sœur dañ daan mer mais léegi ñoom ñoo ma gën a bëgg masam benn rakk bu ñuy wax nday marem chaque jour moom moo leen alimenté mooy tëj mooy def lépp ndax la ma yor foofu aw ma ko fii foofu moo cuisson foofu la ma jël lépp bàyyi ko seen péris ñoo fi nekk mais ba duñ génn. non garaawul <laughs> waaw ay péris la quoi. waaw mais boo xoolee ñoom. Mhm. bu nekkoon si àll dañuy am ay lëm quoi lëm. waaw lëm mooy seen néeg. mais bu dee comme fii ñun ñooy créer lii mooy seen niis. mooy seen nii. waaw léegi nii bi. Mhm. boo xoolee am na ay naissance ok c'est bon naissance yi ñoo nekk nii. Euh. gis nga. de Saint-Supérieur ñoo nekk nii. d'accord ok. mais yi ñaata ñaata semaine la am. non actuellement nii ñu ngi dugg seen trois semaines. d'accord à à semaine lañu semaines a génn. ñoom euh, ça dépend nag ndax boo xoolee. Ah. Euh, même kii dafa génn. d'accord daa am yoo xam dañuy a génn am na yoo xam ne day nekk si niis bi. Hmm. ñu leen di alimenter quoi. mais dañu mën a gum naaw quoi. non non non naaw. déjà tey dugg nañ war nañ box yi war nañ kër gi gis nañ xeetu pigeon yi fi nekk ak xeetu mala yi mhm. tey sa parcours si élevage tey boo ñu ko doon wax ci duggaat lan parcours bi bu dee si wàllu colombophilie bi ngay wax mhm. euh, am naa si parcours boo xam dama see gën a sant yàlla quoi mooy dama ko démarré woon man ak benn jaayaan bu dëkkoon ñaar tali mais léegi muy rifis waa muy aadama kan mhm. c'est que maag moom ñu def compétition pigeon ak bàyyi laat bu dëkk Mbour mu ma doon woo léegi si léegi léegi mais moom Italie la féete woon mais souvent fi la casam ne woon Saly mm-hmm. finalement yi dem di dem di dem ba mujj gi man ma mujj bàyyi quoi mais moom ba léegi moo ngi moom moo njëkk def Sénégal prison bi ñu ko fay cinq cent mille si voyageur moo ko njëkk a def Sénégal sa prison ba man maa ko joxoon Sénégal fii la fii

ndax kii dem di enloger ji ak kii suivre yi agsi waaw benn nit mën ko quoi mais tey la gën a nekk sama xol quoi parce que boo seetloo léegi fusion tey yar beeg euh, course yi tey dafa am doole ci biir Sénégal parce que ngay gis léegi ñu ngi koy médiatiser bu baax di am organisation yéen ñi nekk ci Colombo Culture am ngeen organisation wala nan taxawee tey ci biir waaw man Colombo Culture laa gën a nekk actuellement nii mooy association élevage sa kanam mais tey boo léegi la nit ñi di yëkkati seen loxo quoi di wane ne ay éleveurs pigeon la mais bu njëkk nit day dëkk su kon di def élevage sax di yar pigeon dañ koy xeeb dañ koy minimiser dañ koy def nit ñàkk fayda la mais léegi ñëpp daw nañ song ñun nag boobu leen si nekkoon ba léegi ndax bu njëkk noobul dëgg moo doon éleveur rawatina éleveur pigeon dëgg la léegi nag wax ji bari na ñi si nekk deux ans bari na man sama kër pigeon mu ngi fa boo xam ne def na dix-huit ans sama kër démb laa toogaat di ko wane dafa dem ba tànk am problème mu dem ba am cataract muy pigeon voyageur. mooy sama meilleur pigeon ay suba rek envoyé naa ko sama commune bi. parce que gis nañ nga dugal ko Facebook. si di ko expliquer. danoo fasante colère quoi. macha allah mais yaa ngi doon wax ni ba léegi ñu ngi ba léegi. ndax tey femelle yi mu daan àndal àndatul ak ñoom léegi jeune femelle lay àndal. dëgg la sama benn copain bu ñuy wax Issa Ndar moom éleveur bu mag la quoi. ñoo bokk association maa ngi leen nuyuwaale. moom dafa dafa ñeewantal affaire ba démb dana ma da nga koy wutal case nga ber ko di ko jox alimentation yu riche man ko kii boo ko tëjee day dee ndax li koy rey mooy tàmmul tëj sa tey alimentation yi muy defal boppam ak soleil bi muy soxla mm-hmm. moom moo xam température bi mu soxla mm-hmm. si paree doyal na si la pison mënul dund sans soleil mënul nekk boo ko defee rek dèjà yaa ngi wàññi si moom lu bari tey par exemple mën nañu wax ni tey euh, yar bi tey dafa am ñoo xam ne tey ñoo la ci inspiré. tey kan moo la inspiré ci ñan ñooy persécuteurs yi nga xam ñoo commencé yaru pison ba Issa tey yow nga mën a am amour ni ñu ci man nag pigeon dama si boo xamante ni. Ah. Euh, yow sama nit nga sax moo tax ma la kay wax. bu mu jaaxal kenn sama maam moo njëkk nekk imaamu Pout. jour ba muy jaaju pirax bu weex naa naaw si mbagam mu tombé ak aajuma muy jiite sama rakk papa moo ko jàpp rendi ko jour boobu la gaaju moo tax dara jaaxaluma si avant tout na gars yi jël seen xel def ni don la def ni tamit miracle suñu borom da see nekk ak yeneen ak yeneen yoo xam traversé na ma si xam nga ku taxaw si lu toll nii rajo wala nga télé comprendre nga ak technologie ni mu avancé nga osé di taxaw di wax loolu kon fi nga teg sa tànk ak li nga wax gëm ko sa tamit nekk na ko dëgg la noonu la demee. dëgg la mais ne fusion sax bu njëkk ba dina dox ay day delloo ginnaaw kër ak yooyu yëpp dégg nañ ko fii te loolu mun nañ yow boo ñu ñëwee tey wan ñu kër yoo xam ne tey fusion yee ko tabax. loolu du def lu dul consolider lii waaw njàngale suñu borom njàngale suñu dafa yaatu quoi day ah. am ñuy bëgg a nangul yàlla am ñuy bañal yàlla am na ñoo xam sax li yàlla santaan sax gëmuñu ko hmm. mais man damaa am sama kër boo xam ne maa ngi koy tabax di hmm. ñaan yàlla Sénégal ku ma si mën a ñaanal wala nga mën ma si dimbali ah. xam nga nit boo amee tranga boo xam ne yàlla nga la koy defal du looy nëbb quoi du secret mais puissant yi ñoom ñooy defar bâtiment boobu hmm. sa ñaan naa yàlla mu doon ay étage yi ko yàlla moo tali sa du ma fa dëkk lu dul puissant <laughs> léegi yow say cible Issa say client sa clientèle. Hmm. gis nañ ni parfois sëriñ si ñoo ci ëpp. ak étranger kilifa yi étranger yi tey sa booy envoyé sujet fu mel ni que Mali Burkina ci sous région beeg yooyu loolu comment ça se passe boobu nan lay amee. non man nag li may dimbali mooy association bi ma wéeru. Hmm. mooy élevage sa kanam. Uh-huh. ak récépissé am. xam nga récépissé bari na mais uute tamit. Hmm. man su ma lay jaay facture élevage sa kanam laay def du def facture Issa uh-huh. ndax si norme yu leer laa koy jaayee. suy dem tamit day dem si turu élevage sa kanam. pour buy génn quoi. d'accord mais tey jaay boobu tey nu mu demee ak période Covid bi gis nañ ni dem beeg dikk bi metti na loolu est-ce lu mu wàññi tey ci seen ci production. no man man moom man wàññiwul sama liggéey dara mais sama client yi d'une part ñoom seen côté man li ma man xëy na mënuñu ko ndax man nga leen a envoyé mu dem ba àgg foofu. mu dem ba war a dugg seen frontière ñu boole ko ko mais man li ko yóbbu man nekkul sama problème quoi. mais clients yi foofu ñoom ñooy am problème mu réservoir seen i chise quoi ndax seeni i frontière tëj nañ ko. Uh-huh. ndax yaa ngi dégg ay grippe aviaire yaa ngi gis Covid beeg yeneen ak yeneen. Uh-huh. loolu moo waral nag ñu tëj secteur yëpp. dëgg la mu mel ni sax loolu FIARA da daan am nga dem présenter indi say mm-hmm. léegi loolu amul ren amul. Mm-hmm. daaw amul te ren. waxaguñ ci dara xaw ma ba xam jàpp nañ ko wala ñu date bi. Mhm. loolu est-ce que tamit. waaw man man foire su ma fa demee pour changer relation bokk na si ak sama nit ñoo fa la ñu mën a daje mais man aw ma problème mu clientèle a ma problème mu jaay aw ma problème mu visite. sama kër yaakaar naa moo gën a neex foire quoi. comprendre mais maanaam waaw mi tax mu dàq foire. Hmm. à chaque fois guddeeg lépp Covid bi sax moo ma xaw a jaaxal mais heure bu nekk kilifa yi dañ fi doon ñëw. ñuy hmm. toog lu ñuy waxtaanee élevage rek. ba ay deux heures du matin. sama kër mu ngi fële tout près mais fii këru pigeon yi la. ndax man chambre bee laa fi occupé pour man ak ñoom rek. bëgguma beneen élevage bu dul pigeon. daal bokk na li gën doon sama élevage quoi man. dëgg la yan am ak sa yeneen bokk éleveurs yi. waaw man moom éleveur Sénégal yëpp yëpp yëpp. boo ma ne am naa si kenn ak xaar ma yàlla ak yow quoi sa ñëpp samay nit lan sa chaque jour rek ñu ngi may jàngal damay toog jékki-jékki benn mag wala xale nekk extérieur woo ma expliqué ma su ma bëggee lii wala suma duggee si lii yàlla ak yow la. moo tax chaque jour rek dama si bëgg gën a wane Pastef quoi gën ko téye si loolu nga wax si prison de delloo kër ginnaaw si laa lay ñëwalaat hmm. am na benn waay mu def prêt mais dafa luye woon fi mu nekk jënd ay siise borom kër gi na ko pidaax na génn kër gi day delloo kër ginnaaw jur boobu ma nga waxee métti na trop si moom métti na si man tamit je obligé dafa mujj wante raat prison yi ndax xëy na kooku loolu la gëm sa xamul hmm. mais prison dafa am ay histoire am réalité hmm. xam nga tey boo ñëwee fële ma dëkk asalem sama kër gi ma dëkk sama kër yaay. kër tiimu ko fa. sa boobu avant avant ñu koy tabax mu tool noonu ay pitax ko dëkk mosu fa jóg kon ñàkk gëm yàlla man côté boobu dama ko siy gis quoi. yàlla bindul lu baaxul. d' accord ma ba xaj ci boppam. sunu borom am na fu mu ko bind si arxuraan sax ne am na xaj yu bu àjjana mais ku sam njàng soriwul wala gëstuwoo non doo neex a waxtaanam. dëgg la boo xoolee ay sëñ Abdou

gis kon man aw ma xool boobu ko euh, yàlla mooy leeral mais dafa am lu muy yëg si man. parce que kii am lu mu soxla si man. sa loolu c'est normal dama ko ko war a jox. sa heure am passé na joxaguma ko ko. ndax activité yi merci beaucoup war na naan. am nay parents. mais man maa ko adapté sama bopp. kon man prison serre am na. Hmm. mais man aw ma bu may am xolu ñu koy def prison serre. waaw ah, man. léegi yow saison de reproduction comme pigeon yi léegi pigeon léegi yan saison mooy saison de reproduction boo xam ni mun nañ ko jàpp. non gars yi ñooy wax saison rek mais gis nga grand. Hmm. weer yi ni muy duggantee. Hmm. noonu la climat bi changé. Hmm. Sénégal day am coorool am nawet am loli. bu si nekk il faut nga am expérience am. garab yi actuellement nii ñu ngi wadal seen i xob. instant bi si la yar pigeon gën a méttee soko xamul. mais puison amul période. puison nawet bi nga xamni ne une ragal amna nak ñu produire. Mm. mais bu amé fu une fu mu nek am alimentation bu baax santé bu baax non day produire buy mé na quoi pause tout ndax mu voilà. mais saison man d' accord ma quoi. waaw loolu bëri na ñu bëri ñu si ñoo xam ne d' accord ci. non man d' accord ma saison donc euh, man heure bi ne damay produire saison. Euh, euh, Issa suñu waxtaan mi ngi jëm ci jeex. Mhm. lan mooy lan ngay tëjee lan ngay dénk. moom li may tëjee li may dénk yenn éleveurs yi. xam nga livre bi mhm. livre colombe culture la. livre bi ay kàngaam. Mhm. ak ay expérience ñoo xam ñoo xam ne ñoo am expérience. Uh-huh. ñoom ñoo ko liggéey. waaw mu ngi mel les pigeons de A à Z. waaw.

so man li ma leen di wan mooy preuve mooy mhm. arlequin mais li tubaab bi bind teg mu nekk si livre kenn mënu ko dindi. mais bii bii fi mu nekk nii est ce am nga pigeon bi. non arlequin actuellement nii aw ma ko. moo nekkaat nii kii hyper mhm. kii euh, arlequin la mais si biir arlequin bi dafa am ay race yoo xam ne dana am ay gendarme. Mhm. comprendre nga. Oh. kii nii sato bankaa la sato bi. moo nekk nii mais gendarme yi si la yenn couleurs yi commencé manifester wu ñi nga xamul mu leen di jaaxal. ndax boo xoolee kii gendarme moo nekk nii. fleur am yi nag ñu ngi koy dugal si yenn voyageurs yi mais voyageur Opal am na. Indigo am na yooyu yëpp am na. mais avant loolu dafa am lu ko jiitu kii culbutant crime kaa la kii gendarme moo nekk nii mooy dafa am critère bu muy am ndax pison ñett la composé. mooy couleur ak race ak critère benn mënul dem bàyyi moroomam tey soo fa tegee couleur sa tegoo fa critère pison boobu man bëgguma ko soo ma ko may dama fay bëgguma ko.

kon déjà kooku tour la am mais doon ko. dëgg doonu ko doonu ko. mu mel ni ñu ne ñu ne ñu ne njaga njaga njaga mais est ce que njaga nit la bu tax ñu wara wax. dëgg la dafa jara baye xel quoi tamit. dëgg la dëgg la kii mondé la. kii boo xoolee mondé la amna pigeon bu ñuy ci jere rouge. amna éleveur yo yoo sax ñom dañ né lool amul. mais muy ngi document bi. amma ñun livre yi ay année ay 98 ñu ngi ko yor. kon xam nga amna lo xamni du neex du neex quoi pour ñuy waxtaan ak yéen kii lan la ki ñu ngi duggal ci si. voyageur yi bleu sans barre. bleu sans barre bleu de Gascogne. ok léegi bleu sans barre bleu de Gascogne lañ travailler ak voyageur yi. Ah! bu sans barre. bari na si bari na si nga gis cravate français yi. Ah. ñu bari dañ koy jël dugal ko ci voyageur pour ay manteau. ci lan la cravate orientale moom mooy satinette. satinette moy mooy bolondinette. bi defena mo gëna cher. non wacc na. nee la éleveur Sénégal dañuy xewal <laughs> wacc na de. loolu li colombe la. colombe la waaw. mais colombe kii ok mom mo nekk ni moo nekk nii trace moo nekk noonu cirage yaa gis fii kii moom moo tudd euh, tigre rouge moom la bind fii éleveur Sénégal boo leen tigre rouge ñu ne la c'est pas vrai amul ndaxamuñu ko. gis ñu livre bi. Sénégal ki fii njëkk a def puison man ki ma xam Pa Omar mbay puison la bu dëkk Rufisque Ousmane Samaké docteur Bari yaa ngi dégg. Uh-huh. Pa Saltigué Moro Sika Mbaaw ñooñu ñooy éleveurs yi nga xam ne man ñooñu laa def idole ci ah. xam-xam quoi ñu des nag xeebuma leen quoi mais pour ñu may tegal li nekk si hmm. ñoo ñu laa si soxla seen xalaat <laughs> ma mayaat la leneen puison amul ku koy yar di ñàkk dépense amul man maa ko wax so li tax moo ko dama ko teg fu leer xam laay wax quoi dama waxantu sa li may wax si kilifa laa ko dégg sa kilifa googu lu ma wax suba ba ngoon xam-xam la ak dëgg kenn du ko yar di manque dépense mais waxuñu la nga jël ko rek te ko sa kër de. Mhm. nga jaarale ko yoon. di ko jox alimentation normal di ko. seere normal loolu la ko dëgg la mhm. dëgg la mhm. kon suñu émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di leen jëfal rek di kontaan si yéen di rafetlu liggéey bi. di wax état bi mu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax a baax ndax tey li ngeen di def nii. dama koy faral di wax njariñu Sénégal la. ak ak yeleef bi muy amee si jur gi. di am si nit ñi dañ leen ko war a delloo yéen tamit. Mhm. ndax tey suñ koy valoriser rek grâce à yéen quoi mhm. waaw. mel ni yéen it kenn demul ngeen des ndax li ngeen di def nii laaj na appui ñu jàppale leen bu baax ci li ngeen di def ndax li nii yombul amoo leen subvention amoo leen dara mhm. te loolu laaj na kontaan nañu ci yeen alors yàkkamte won nañu euh ñew puut fekk fi suñu dom muy isa mu dalal nu dal gu dal gu re re re re teru na depuis depuis taliba and ak nun ummat nu ndank ba duggal nu ci biir kërëm lolu yombul isa yalla yalla fay isa yalla yalla fay isa yalla yalla fay loolu ñetti baat yooyu nag kenn mënu koo romb alors euh, euh, yàlla nga dooleeku ba yëkk surtout nag je te souhaite une santé de fer ak weñ moom boo yem moom euh, ak wér ah yàlla yàlla bëgg na la yàlla na la yàlla yóbbu foofu yàlla nga toog ba ngay def di importer ay pitax mu ñëw fii nga ci jariñ nit ñi et puis très bientôt

mais bu ne pir pir pir pir pir pir pir pitax yëpp nekk ko ci kaw mun a pir pir pir pir ñu wàcc pir pir pir pir ñu ñu dugg waaye ko kooku kooku dara dàq ko kooku au moins au moins war nañ ko tegaat pour nit ñi gis loolu alors man loolu daal lu ma image bu ma séduire la

xale yu mën a composé ak mag tey man moom laa dajal ma gën a kontaanati mais ne également booy wax ci télévision également day wax parce que tey mënoon naa jaar ne fii laa doon liggéeyee waxuma ko nit dafay jàng ay wax ndax tey foofu ko doon defee di o ñëpp ñuy téléphone di def lu leen neex tey jii quelque part ñooñu quelque buñ ko déggoon tey jii ñu ne ah ndeketee Mbaye Omar nii la doon def. kooku ce ne pas bon nit dafay xam nan lay waxee. que micro ak boo xasee boo wax. image jeex na. te kenn mëntu ko kenn mëntu ko wecc euh, yàlla yàggal seen taxawaay. yéen xale yi may leen ngeen fekk sanu yokk seeni i wërsëg fi ngeen jaar nag foofu la fi ngeen jaar pour le moment foofu la yoon wi xar nañ ko yéen a fii ne te yoon wi dafa yaatu de da nga siy dem ba jeex sa doom dina ñëw ba dem si jeex sa sët dina ñëw dem dem ba jeex kon kon yàlla na leen yàlla gën a màggaloo ba yéen ñii fi nekk fii tey jii ñu daje fii yalla ah, yàlla ngeen wax na li paa bi waxoon yal na leen may télévision yéen seen bopp parce que euh amuleen malchance boobu ku ku ko am tey ba ngeen liggéey ci mom ku nit bu ñuy judd amuñu dara bu ñuy dee duñu yóbbaale dara mm. kon pourquoi pas vous yalla nako yalla yàlla def pourquoi pas vous yalla nako yalla def amiin amiin yalla na ko def amiin jërëjëf voilà jërëjëf tonton Omar donc li mo nekkoon sen émission découverte vraiment ñu kontaan trop ci dalal Issa dalal suñu mag ñu baax ñi ñu leen dox ci daje ba beneen yoon incha allah merci jërëjëf.